hello. mbikum juróom fukk ak ñaari doomu aadama ay kilifa ci réew mi ñoom la njiit réew mi Macky Sall tànn ngir war a seppi ca ñoom ñu fal ay ministre ci gouvernement bi di ñëw source ay yéen a kaay ñi ko xamal waa DST nag ñoom la Macky jox turu gaañooñu sant leen ñu defal ko enquête moralité ñoom it def nañ ko fi mu toll ni ba noppi résultat yi jébbal nañ ko Macky léegi nag mooy xool ñooñu mu laaj seeni dossier ginnaaw enquête bi ñan la cay fal ministre ak ñan lay bàyyi ñu dem laas yéen a kaay na ko tey ci àjjuma ji ci la Macky di dajee ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci cabinet liggéey ak moom a set fay tàggatoo ak ñoom gërëm leen sant leen comme ni mu ko defee ministre yi keroog tey mbooleem ku nekk ci cabinet président Macky Sall ak poste boo mën a yor Macky tey lay tàggatoo ak ñoom xam na ñoo xam ne danañ woy continuer di liggéey ca cabinet ba waaye am na ñoo xam ne dañ leen dàq de nay leer li leerul yéen kaay bi di Sud Quotidien mooy Ousmane Tanor Dieng lan lay nas ci yan pexe la nekk ba tax yéen kaay bi xëy samp laaj bi ndax nee na Tanor Dieng tàllal na loxo ñoom Bamba Fall ak Khalifa ñu ni mel te buñ fàttalikoo ay weer ci gannaaw moo leen fi dàqoon kat ji gileem génne leen PS ne yooyu yaay ay robel lañ tax yéen a kaay na dëgg lu mu ne ak lu mu bëgg vox populi naka xaw ma tanoor de waaye xalifa sàll moom ëllëgam ci wàllu politique nar naa taq suuf de a yaaw seet xaritam yi ko jege woon ñu bëri sa ñoom bàyyi nañ ko bokk na ca ba Fall dellu na PS professeur Moussa Diaw ne xalifa sàll kay pour mu jógaat ci politique du yomb nar naa jafe lool ndax dooleem fi mu toll ni mi ngi wàññeeku ndax gaañaa ngi koy wan ginnaaw docteur Badji na ko daakaruma ak yow de xalifa sall defal ndànk dooleem dara jógut ca te gis nga bés bu génnee kaso nga xam ne lépp dëgg la ëllëgëm ci wàllu politique ci loxoom la ne néew ci loxo kenn loolu laa nga xam li mu ñu xamal moom Alioune Tine bi fi jiite woon rajo bu Sénégal mooy tolluwaayu réewu Mali ak réewu Burkina Faso fitna ya fay am ñaawlu na ko ba pare sàkku ci CEDEAO yi ñu taxaw ci wane fulla ak fayda ndax lii raam ci ñag bi la jëm te xay du yem ci bopp borom surtout ñun Sénégal Mali fa ñoo jege téeméer ak fanweeru pël yañ fa rayoon xam nga ne loolu fa ñaaw ñi bañ lu ñaaw am seen ba tax dugg fi mu toll nii lu leer nañ nga fay duggee du ñenn ñu may réewu Maroc aa yaw bëgg dem léegi Maroc na la wóor ne da nga dagg billet avion aller retour def réservation hôtel ba nga war a dal ak frais séjour yi le quotidien yéen kaay moo ñu xamal na li tax Maroc def loolu nag moo yokk kaaraangem kaaraange doomu réewum Sénégal ci xam-xam biñ leen di jàngal lenn rek leen ko mën a jox moo ñu jàngal leen li fi Cheikh Anta Diop bind bàyyi fi du samay kàddu ay étudiants ñoo amal doxub ñaxtu ca Ndakaaru démb sàkku ñu jubbanti yëf yi te dëgg ju dara lu mooy Cheikh Anta Diop xam-xam xalaatam gis-gisam lim bind buñ ci sukkandikoo jàngal ko suñu doom ci biir école yi ak université a suqali suñu ay dara wut jël ay tubaab lañ bind te dara ci ñu ko jàngal suñuy doom direct info ñu ko xamal li mu ñu xamal moom la sala yéen a kaay mooy feetu 4 avril bi juróomi junne ak juróom-ñetti téeméer ak juróom fukki doomu aadama ñoo a défilé ca ndakaaru junne ak juróom-ñetti ak fukk ak ay civil ñoo xam ne duñu ay takk der askan wi danañ ca bokk ñeenti junney takk der danañ défilé bokk ca feet ga armée bi dana wane boppam ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci ay oto téeméer ak ñaar fukk ak ñeenti moto ak juróom-ñeent fukk ak benn fas matériel jumtuwaay armée bi yëngatu ci wàllu suuf si ndox mi ak jaww ji ñëpp danañ défilé wane seen mbégte ci bés bi Sénégal boppam bés bi Sénégal jagleel soxna maam jaara buso màggalam ga juróom benn fukkal bi yoon ak juróom-ñaar xamal nañ ko démb ca poroxaat réew mi yéen ñu ko xamal xalifa général des mourides nag sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke ci kàddug sëriñ Bass Abdou Xaadir Mbàkke yëkkati na fa kàddu yu am solo ak ay ndénkaane jëmale ko ci jullit ñi rawatina taalibay murid yi bokk na ca ñuy sàmm li tënk yoonu murid sàlloo liggéey jaamu yàlla moytu ay bàkkaar yéenekaay bi nee nañu fa sàcc juróomi téeméeru milliards ci suñu xaalis ay ci ñaar fukki at ñaar yam fa nekk loolu la fa sàcc yóbbu ko les éco yéenekaay dëggal xibaar bi ne waaye ma wax la fan la sàccee milliards yu bëri yooyu bant ya nekk ca forêt àllab Casamance ba ak MFDC rebelle yi ñoo jàppale Yaya mu sàcc bantu Casamance ya xàll ba dem jaayi ko bitim réew ñoom waa MFDC rebelle yi boo moytuwut encaissé nañ jot nañu lu jege ñaar fukki million ci xaalisu dollar libération na Yaya moom li mu sàcc yëpp ñetti téeméer ak ñaar fukki juróomi million ci dollar la ci àllub Casamance bi ay bantu wén moom la doon dagg jaay réewum Chine sàcc gi nag mi ngi am ci diggante atum ba xam ngeen loolu ñaaw na leneen lu ñaaw waaye fii la amee Sénégal mooy ñaari militaire yu summi seen tenue ya civil dem songo ab banque wa fa cash sa Nord Foire ngir sàcc alal ja l'observateur moo ñu ko xamal nee na bu njëkk bi Lamine Sagna la moom joxe nañ ay xibaar ne yàgg na koo def sàccoon na poste de ba nekk Casamance ñu jàppoon ko ba ñu ngi doon aw yoonu dàq kajji génne yi ni mel joxe waa ma ne yaayaa jàmmeeg ay militaire ak ñu ñuy wax naan fañ doon jéem a sàcc man kay li may laaj mooy ñi war a tere sàcc buñ demee bay sàcc waa léegi am càcc moom su boobaa kañ la fiy jeex